dans tout ça waaw il faut ma daaneel. ñu mm-hmm. doog a dugg. Mm-hmm. Euh, président Macky Sall fii ba deux mille vingt quatre lu ko neex def parce que moo yor doole ji. Mm-hmm. comprendre bu ko neex a def mais nekkul lu ko neex wax parce que li mu bëgg a wax munu koo wax ñaari affaire a ko dal président Macky Sall. mooy la mooy euh, ka bëgg a ngénte te sañ te yëgale ngénteem cest dire que euh, xam nga. Euh, président Macky boo ko doon missaal mhm. dafa mel ni waaja daal moom daa am doom. Mhm. ba mu amee doom euh, gaa yi da rataxle euh, di werante mu ni bu ci kenn wax samay mbiru doom daal bu ci kenn wax. Mhm. mu am ñu doon wax ne di laay biir naan moom de doom ji sax juru ko. comprendre mu dàq leen duma leen. Euh, ñeneen ñi dem ba ci digg jamono mu mel ni daal mhm. moo dor bi moo doon mhm. léegi bu maa leen waxul bu ci kenn wax léegi wax leen ci mhm. ñenn ñi tëb nag dem ni euh, doom ji sax moo ko jur kon donc war na koo mën a ngénte ñooñu moom ñu ngi leen di kiibal ca léegi leneen liñ ca jaaxal mooy euh, ngénte moom ay la yoween borom ngénte li moo koy yëgle yow jënd nga sa tissu bu ngay defee jour ngénte bi ba jox ko tailleur muy euh, def haute couture. Mhm. ba mu ñawal la ko yow jënd nañu laax araw nañu soow maa ngi fi way na yëpp léegi nag penc bi ñu toog pour génn di la déglu nga wax ni damay ngénte te bisu laay ngénte. Mhm. comprendre nga mais euh, yow sa lépp mat na mais ñeme woo wax ni da ngay ngénte donc loolu moo dal ci bi pour faire allusion un peu ak troisième. Euh, troisième candidature candidature waaw bu fekkee bëgg na ko ñaari problème la am. Mhm. kañ laa koy wax. ak nan laa koy waxe moom ñaari problème yooyu. la apport Amadou Ba. voilà maintenant Amadou Ba trio boobu. je parlais tout à trio boobu euh, soo ci xoolee euh, sonk mooy li ma la wax nii. Mhm. c'est-à-dire que ca nam fa demee fii ba deux mille vingt quatre mhm. euh, daanaka ay ay ay jëfam lay war di gën a sàmm plus que davantage ay waxam. parce que fi mu toll nii euh, la Cheikh Béthio bu baax ma doon wax quoi dafa mel ni daal Sonko fii ba 2024 daa am maa yàlle xam nga maa yàlle maanaam moom kon toppewu ko dara quoi ñun loi yeeg yooyu ñun suñu classe gii ñoom góorgóorlu mm. ñun la ñuy sonn quoi fi mu toll nii lu ko mm. neex wax mais mm. xoolal li Souleymane Faye de wax mënuloo ma nix parce que boo ko jël see dëkk bi eh, jaxasoo mais maintenant léegi Amadou Ba kaam mm-hmm. nag c'est beaucoup plus pernicieux parce que mm-hmm. Amadou Ba mm-hmm. su ngeen ko xoolee bu baax Euh, moom mën ngaa jàpp ni moo ubbi les hostilités. Mhm. daanaka moom ak Sonko ku ne dañuy euh, ku ne daal. Mhm. daan nga diwal euh, pomaat sa morom ñoom ñaar ñoo bokk seen i impôts et domaines. Mhm. mais Amadou Ba euh, pour nga mën a analyser son tableau il faut nga analyser ko à deux niveaux. mooy Ba par rapport à Macky Sall ak Amadou Ba par rapport ak Ousmane Sonko c'est-à-dire que Amadou Ba par rapport ak Macky Sall c'est le jeu du euh, malin et, et malin et demi. c'est-à-dire que da ngaa muus. mais mm-hmm. maa la gën a muus. Mm-hmm. xam nga Amadou Ba euh, su fekkoon pexe yi président Macky Sall jub na. Mm-hmm. Amadou Ba du mës a nekk premier ministre c'est un premier ministre par défaut. Euh, choix wu président de la République euh, d'abord ci sa Seck la njëkkoon nekk. waaye moom na mu fa demee ñoom ñaar d'accord ñu d'ailleurs révélation pour révélation d'ailleurs réew yi ñu ngi ko expliqué nañ ko après. ça veut dire que ñoom li ñu waxante woon ak président Idrissa Seck c'était que Macky 2023 du présenté waat c'était la seule condition que Idrissa Seck posé woon euh, posé woon pour mën a jël post bi président bi xamal ko ni moom daal 2023 daal na ma nekk candidature idi gedd dem mais jamono yooyu nag bu ngeen fàttali fàttalikoo ci neen doon teg assemblée nationale mimi mu am fa kaaw mimi su mimi fippoo du fippu te Amadou période boobu xamal na Macky de manière indirecte ah jox leen ma gaal gi baa ma yëngal réew mi la mhm. la Pape Cheikh doon way su ngeen ma joxul poste premier ministre bi mhm. dana danaa yëngal gaal gi te comme Macky bëggul woon nekk ci deux fronts mu jox ko ko euh, te dama jàpp ni euh, choix wu Macky de cœur jàppal bu baax tour bi ma lay wax c'est Abdoulaye Daouda Diallo bu fekkoon ah bu fekkoon les on était dans les conditions normales de température et de pression mm-hmm. Macky amul benn pression mm-hmm. euh, euh, Mimi taxawul kaaw Amadou mm-hmm. euh, daaw Daouda Diallo parce que foo mu jaar ak moom mais léegi-léegi président Macky Sall dafa nommé ce n'est pas le président Macky Sall qui a nommé Ba comme PM. Mais c'est Amadou Ba s'est imposé à lui pour mm. ce post de en PM. En fonction oui, de la situation. Il y, a, euh, euh, il Euh, dafa mel ni Amadou Ba dafay euh, li muy ànd ak Macky yëpp. Mhm. mi ngi xaar la moindre occasion pour mën a gor tànkam. ma jox lay mhm. misaal. Mhm. Euh, Amadou Ba non seulement muy premier ministre mais moom commencé na campagne parrainage am. ay Touba Kaolack ak yooyu moom mi ngi def ay parrainage en son propre nom ba pare moom. Ah c'est-à-dire moom jàpp na ni. peut-être ñaari cas de figure mooy am. Euh, ñu samp ko. Mhm. mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar. Mhm. de par sa démarche euh, ou bien samp ñu ko. Mhm. mu xëtt ci lëndëm gi. Euh, lu mu am jël. léegi nag président Macky Sall ci ni muy taxawee moom it. da koy dafa mel ni comme si. danaan sans waa ji yow de tu t'es imposé à moi. yaa ngi dawal defe ni man nanduma affaire yi. mais da ngay jaay ni muus rek danaa la wan ni maa la gën a muus te d'ailleurs te d'ailleurs je crains fort. at mii. Euh, balaa ñëw dem ba juin. moom mu continuer nekk premier ministre xam nga lu tax. Mhm. parce que. Euh, d'après jàppoon ne remaniement mën na fi am. waaw mën na fi am parce que. Euh, dès lors que c'était un choix par défaut. président Macky Sall daf ko choisiroon pour génn ci benn impasse. Mhm. aujourd'hui génn na ci impasse boobu mooy l'impasse Mimi rek réglé na kaaw Mimi Touré ba féete na boor mhm. léegi nag dina mën a jublu ci Amadou Ba xam nga ci ban prétexte lay lay jubloo yéen a ngi wax procès Mame Mbaye Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko. xam nga Amadou Ba nañ ko ci. Mhm. comprendre nga. président mën na ni par exemple comme dès lool ko cité nañ ko ci. Mhm. donc pour mu mën a seetal deram. il faut mu destituer ko mu wàcc. kon da nga jàpp ne Macky mën na ko sàkkal pexe avant ñu dem ci euh, mois de juin. nga yow waaw lu lu lu mën a nekk parce que. Euh, bu ngeen ko xoolee ba ci biir. Mhm. Euh, et c' est ça qui explique mais loolu ci analyse côté Ousmane Sonko la c'est-à-dire que. président Macky Sall xam na ni. Amadou Ba mii mu teg fii. dénk ko premier ministre. du premier ministre moo ko intéressé fauteuil bi Macky Sall toog moo ko intéressé. ah bon comme waaw loolu waaw waaw may ma rek waaw li ñuy gis ci ak ak nu muy waxee loolu tamit gis ko ci Amadou Ba a jafe. waaw waaw waaw bu doon loolu la. moom kon du dem defi ay parrainage du de nekk fii di wut ay parrainage ci li ma la mën a wax. comprendre mais mais yàgg na Mbour dëggal Kaolack. Euh, mi ngi fa Touba euh, mi ngi fa c'est-à-dire que euh, Amadou Ba dafa am ambition présidentielle yow rek la ump journaliste. mais Sénégal yëpp leer na seen bopp. mais yow nag mën na laa na laa ump quoi à moins que tu moo tax ma julla mais c'est-à-dire que mm-hmm. dinaa la jox benn indice. pour wane ni kii bi le le jeu. Mm-hmm. Farba. Mm-hmm. moo ko collé serré. Farba ban Farba Farba Ngom. Euh, day taxaw fu ne mook Amadou Ba fu ñu nekk. Mhm. mu taxaw ne ñun Macky Sall mooy sunu candidat. tey bëgg ñëpp waxee noonu taxawee noonu Amadou Ba du taxawee noonu danaa ñun daal ñi ngi déglu Macky Sall lu mu wax rek noonu la xam nga y a une nuance subtile. Mhm. Mhm. comprendre nga li Tafatine di wax. Euh, takk ci rib yeneen gaa yëpp dañ cee takk rib mais moom waaw moom takkagum ci rib dañ cee def léegi nag man ci li ma jàpp mooy euh, lii tax président Macky Sall. Mhm. di nekk malin et demi. Mhm. di ko war a jaay ni yow da ngay jaay muus. mais man dinaa la wan ni maa la gën a muus. nan euh, ci ban logique. Mhm. par exemple xam nga président mën na ko bàyyi ñu dem ba ci kanam bàyyi mois de juin. xam nga kon su boobaa li ci des. Euh, par exemple juin juillet août septembre dañuy commencer déposer. c'est-à-dire que lu ñuy gën a dem rek. Amadou Ba di gën a ñàkk temps. Mhm. pour bu fekkee dafa xëtt ci lëndëm bi très bien pour mhm. mën a euh, préparer léegi nag président mën na koo sës ba ci miir bi. Mhm. à parti de moment loolu ak procès yi may ñaa bi. day am benn euh, artefact juridique. pour mën a comme ça waaye daal ñu ngi lay tudd ci vëleeg yooyu. te en tant que ministre mën loo nekk ministre di dem ci kii. léegi dama nga di régler yooyu mu te daal di régler waale kii bi quoi. daal di nag jox booyam bi mu bëgg. parce que tey jii problème bi yëpp mooy. Euh, Euh, sans compter. Mhm. Euh, les les formes de légitimité interne au niveau de APR euh, de de. de Benno de Benno mhm. parce que bu dee APR. Mhm. ñoom gëmuñu Amadou Ba en fait. mais Benno Bokk Yaakaar. mën na ko investir logique boobu. parce que pour gaaw APR yi il estime que Amadou Ba c'est le militant de la vingt cinquième heure. au nom de quoi il investirait Amadou Ba. bàyyi fi euh, Aly Ngouille Ndiaye boo xam ne mhm. ba ñuy créé affaire bi ñoom la militants de première heure de première heure mhm. Abdoulaye Diouf Sarr mhm. euh, Abdoulaye Daouda Diallo ñooñu nga xam ne ñoo créé mais kii nag moom dafa ñëw wàll si euh, wàll si yaan kon donc ëpp leen légitimité sans compter que Diouf Sarr mi ngi daas paakam fanaanal parce que moom jàpp na ni bu perdee Dakar <laughs> et cetera moo ko kon donc sans compter yeneen gàngoor bi yëpp jàpp ni kii il est un peu déloyal. Mhm. parce que ëllëg mu toog jàppale président. Mhm. mais il lorgne fauteuil yu président. kon donc moom mhm. en en en beneen kii bi bu koy handicapé moom. c'est-à-dire que moom Amadou Ba. moom Amadou Ba a euh, voilà avancer tuuti ah. il n'a pas de base politique. peut-être comme Sonko ni mu koy waxee. Euh, comme Sonko ñu ko gën a xam. Sonko nee na moom daa am xaalis. donc moom peut-être que base politique am mooy xaalis. parce que Amadou Ba bu dee Fuuta amu fa encrage bu dee parce que ñun Fouta ñaari côté la. côté Podor bi. foofu euh, euh, Cheikh Omar Anne ak euh, peut-être Racine Sy. ñoo fa am ancrage côté Podor bi. boo ñëwee suñu côté ñun maatam foofu Farba Ngom moo fa am ancrage bi doole bi et peut-être Malick Sall. peut-être ah Malick Sall. moom. Euh, amul ancrage Fouta. amul ancrage Dakar parce que même parcelle bi muy wax nii. ne fa lay militer. su foofu Sonko ko mais c'est la victoire de Dakar en 2019 aussi non non non d'accord foog ñu bàyyi ci xel parcelle mhm, mhm. ne moom mooy base am. Mhm. <laughs> Sonko gagné na ko fa. kon donc non je parle de 2019 na ba di diggante bi. am na rapidement kon donc ce qui fait tey jii euh, je ne sais pas avec quel ancrage politique Amadou Ba peut gagner hein, des élections même s'il était investi présidentielle voilà ici au, au Sénégal et peut-être peut-être euh, je pense que l'une des